yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na nag jamono ji Macky Sall yokkal nañ ko doole Macky Sall doole yëpp ma ngi ak moom lu soxal nag wàllum liberté askan wi Macky Sall mën na ko gàllankoor te du proclamer li nga xam ne mooy état d'urgence journal bii di L'As moom nam ko tuddee mooy pouvoir illimité jamono ji moom la Macky Sall yore ñi nga xam ne nag ñooy xeex lu jëm ci àq ak yelleefu doomu adama ñoom Seydi Gassama ak ñoom Assane Dioma Ndiaye ñoom nag naqarlu nañ bu baax a baax loi nga xam ne modifié nañ ko ndax dañoo jàpp ne àq ak yelleefu doomu aadama ko état de ko ci kaay gii di réew mi quotidien fa la ñu ko xamle ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye la mu xamle nee na loi bii nga xam ne modifié nañ ko loole nag lenn kese rek dong lay firnde la maanaam ak deltu ginnaaw gu doy waara ci lu jëm ci wàllum démocratie ak wàllum dictature goo xam ne moo am ci réew mi yéen a kaay gii di Sud Quotidien ak L'As nee na assemblée nationale jël na dooleem ji yëpp jox ko Macky Sall journal bi de la témoin nee na neexul ba neexul waaye Macky Sall jamono ji am na ko natt na ko te naam nag lu ngeen ci xamul Macky Sall amoon na doole de waaye ko koy yokkal la yéenekaay gi di enquête ñu fekk fa député Cheikh Abdou Bara Dolly ñaawlu na bu baax a baax bii nga xam ne modifié nañ ko nee na nag Macky Sall bu fi waxee ne dafay def ñetteelu mandat bu naqaree askan wi su ko neexee daal di déclarer li nga xam ne mooy état d'urgence te bu boobaa kenn du ci man dara yéenekaay gi de la témoin xëy na def ab taxaw seetlu diggante président Macky Sall ak sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew maanaam waa diaspora bi diggante diaspora bi ak Macky Sall diggante ba yàqu na yaxeeta jamono ji nag Ousmane Sonko la ñu diw bër te 2012 si ñaareelu tuur yi ci élection yi diaspora bi Macky Sall la ñu voté loon bëri na ay promesse yoo xam ne Macky defoon na ko waa diaspora bi te ba léegi nii France dali xëdde na moo tax sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew fu ñu gis Macky Sall rek lonkol ko ay pot pota andil ko musiba ak mbelengaana fu ci mel ni France gis ngeen na nga xam ne moom la ñu ko defoon ca États-Unis ba ca Afrique du Sud journal bi nee na liy firndeel ne jamono ji diaspora bi ñu parti Pastef waxee ne dañuy dajale ay koppara ca bitim réew gis nañ millions yi ni nga xam ne moom la doon jàba jonge te élection 2019 sax Macky Sall dañu ko gagné ci fi nga xam ne mooy ci bitim réew te nag sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk étranger am nañu solo lool ci lu jëm ci wàllum ci ki nga xam mooy Macky Sall Ahmed la Houston la nekk nee na diaspora bi li tax ñu bàyyi Macky xam ne moom la amee ndax du comportement boo xam ne bu baax la te Macky Sall ci boppam am loo xam ne daf ko tàmmal askanu Sénégal mooy wax te du ko def yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Toussaint Manga moom yàkk musiba ak mbelengaan Félix Antoine Diome ministre de l'intérieur def na ay révélation ci cabinet ERA bi nga xam ne moo gagné marché bi ngir nag auditer fichier électoral bi moom Toussaint Mangal député bi nee na cabinet boobee liggéeyu na ak Antoine Diome ci lu jëm ci wàllum kër yi te cabinet boobee ci ay tappale ci la yëngu ndax moo defoon ay fausse preuve ci lu jëm ci mbiri Karim Wade Antoine Félix Diome l'homme de tous les complots selon Toussaint Manga yéen a kaay gi na cabinet ERA boobee amul benn compétence boo xam ne amee na ko ngir auditer fichier bi ay njublang ak i moom la ñu si bëgg a def cadre du deuxième mandat la yéen a kaay gi du l'observateur ak libération ñu xëy jànge fa ne Aïssatou Seydi mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon jabaru Diop ISEC jamono ji teg nañu ko loxo niki démb la ko brigade de recherche bu fédère bu teg loxo enquête nañ ko ci lu jëm ci wàllum kër gi nga xam ne nee na moo ko moom te Diop ISEC moom tim wax ne moo ko moom la nga xam ne moom la ñu toppee Aïssatou Seydi jamono ji mooy lu jëm ci wàllum njubla nga faux usage de faux ay tappale escroquerie foncière détournement yéen a kaay gi di Vox Populi xëy ci mbiri étudiante bii di jaari saw mi nga xam ne moo ne mes na men Montaigne journal bi nee na Toulouse lañ ko mujjee gisee Amadou Diallo consul bu Paris nee na jamono ji nag mën nañoo dalal xel yi ci mbiri jaari sow waaye nag mënuñoo wax lépp yéen i kaay gii de la témoin moom muy woo askanu Sénégal ci mbiri jaari sow ndax ñu ànd ci akuk dal nañu ca ànd akuk dal ndax ñu baree bari li ñu njortu ne mooy am ci mbiri jaari sow sori na ko loola xanaa xamu leen wala yëgu leen wala da ngeen a doomu maam Makhtar Gueye ba maam Makhtar Gueye bu ONG Jamra doomam ji nga xam ne dañoo waxoon ne dafa ne mes na menteñ fekk moom akub xale bu góor ñoo